léegi nag dafa am ay doomu aadama yoo xam ne xaw ay saytaane lañu xaw ma lan lañ mën di doon mais baaxuñu ci am réew baaxuñu ci cohésion sociale bi ñu am te dañ leen a war a artu wax ci ñoom kii ñuy tuddee Cheikh Oumar Diagne du nit koo xam ni kii principe yi muy àndal nekk na ay principe yoo xam ne dafa war a dugg au sein de la République le président Diomaye Diakhar le premier ministre Ousmane Sonko nañ xam ne dañoo nekk ci benn réew bi spécial boo xam bii Sénégal la am ay tradition am ay coutume am nu mu tëddee loo xam ne lii kenn ku ko ci mën a dindi mënta nekk kon boo toogee di diriger réew mu mel noonu nga am nit ku mel ni Cheikh ma Diagne nga xam dalay indil ay problème mu tarixa di la indil ay problème mu sëriñ di la indil ay problème mu waaso ak lu nekk mu wax ko loo xam ne luy war a diviser réew mi la kooku da nga ko war a artu te waroo dugal ci biir présidence de la république wax nag dafa jot Cheikh Omar Diagne wax leen ko ne defu leen révolution defu leen coup d'état Sénégalais yi ñoo toog woteel leen à cinquante quatre pour cent am yaakaar ci yéen pour ngeen nekk seen serviteur li ñu war a def moo ñu jubóole sénégal yi defar xol yi respecter suñu pouvoir spirituel bi nga xam ne bi la moo ëpp doole fuuf pouvoir temporel Cheikh Omar Diagne ne tey làmmiñam wi liggéey pour askan wi jubóole sénégalais yi nekk un bon serviteur de la république na bàyyi diviser bi muy diviser sénégalais yi na bàyyi wax yi muy wax ci biir tarixa yi vidéo bii mu def màggalu Tuubaa la ciy attaqué suñ Tuubaa la ciy jëm attaqué ca tuuti na ci attaqué suñ Tuubaa suñ Tuubaa laa la wax mooy jëriñu réew mi mais réew mi jëriñu suñ sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ci boppam soxlawul ku ko propagandal soxlawul ku ko xulool soxlawul ku ko xeexal mais Cheikh Oumar Diagne dafa war a tëj gémmiñam gi bala mu fi indi problème boo xam bi dana dema dem ba weesu la yow président Diomaye Diakhar fay kii place nekkul au sein de la république wax na ci màggal gi loo xam ne lii peut xam naa ni murid sax dañ ko répondre par le mépris mais man dama koo dégg ma ne naa wax pour ñu artu ko bala moo wax loo xam ni ëllëg dana tasanteeg murid boo xam ne xolam dana jóg mu def ko loo xam ni waru koo def ci réew mi soxlawul loolu kon monsieur le président la république monsieur le premier ministre arrêté Cheikh Oumar Diagne parce que lii mu def d'abord jëmale ko ci King Fahd Palace King Fahd Palace dafa nekk benn hôtel boo xam ci domaine privé de l'État la bokk kon suñu amee bisu sëriñ Touba am sëtu Serigne Touba boo xam ne bii at mu ne day dem jël ay nit yoo xam ne dañoo bëgg a fekk ci bisu Serigne Touba bii ñu daan ko jàppale ci loolu di ko fa dimbali pour que bu dikkee ñu dalal leen fa man mi dalal naa ko fa ñaari at yoo xam ne bu dikkee man maa ko daan jox néeg yi président la république mas ko wax yëg mas koo muy lu rafet ñu dalal gan yi noonu ma ko doon defale moom noonu laa ko defalee taal taal yii buñ masaan ñëw dama leen daan jox aussi ay chambre yu nekk foofu loolu nga doon ni lokk longue tradition Cheikh Omar Diagne warta ñëw di ko yàq bay bind not di ko wane pour du wane ne def noon rupture lii foo dem gis nga booy def rupture da nga seet la fi doon baax nga gën koo yokk la fi doon jubal nga gën koo jubal lay bool yi nit ñi nga boole mais doo dikk di def loo xam ne lii day metti ay nit lii mu di di def dem jël chambre ya jël oto jëlal ko oto indil ko fii mënoon naa ñàkk kon président de la république monsieur le premier ministre Ousmane Sonko Cheikh Oumar Diagne servir leen servir république te day yàq réew mi léegi nag bu ma sañoon ngeen wax ak moom ne ko rupture du fekk li fi baaxoon nga koy salfaañe rupture mooy lu dëngoon nga jubbanti di def lu rafet pour Sénégal nekk réewum jàmm te suñu pouvoir spirituel ak suñu pouvoir temporel bi nañu fexe ba kenn yàq diggante bi kii xaw ma fu mu jógee mais baaxul ci réew mi na ngeen ma jéggal nag mun ma woon a wañ a wax lu mel nii mais il faut ñu artu ko il ne sait pas ce que c'est que république faut que ñu jël ay plaie di leen def au sein la république et Cheikh Oumar Diagne je trouve que c'est une plaie au sein de la république maa ngi leen di jéggalu nag ci wax bi mais il est des moments dans l'histoire que nit ñenn ni ñu ñu artu leen wax leen seen bopp balaa ñuy indi loo xam li baaxul ci réew mi maa ngi leen gërëm di leen sant